asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah lundi 19 août 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb la leewtoo point net jàppal bu dee yëglikaay bi di sunu lamb la moom jàkkaarloo bi nga xam ne moo amoon démb doxoon ci diggante kii nga xam ne moo di Modou Lo mi nga xam ne nag léegi moom la yàlla def nag muy roi des arènes ci lu leer nañ ak ka nga xam ne moom la nangoo ci moom roi ba di Eumeu Sène ma mu daanoon yëglikaay bi nag ni nga démb day ñaar ñi moom daje nañ ca fa nga xam ne moo di TFM Modou Lo nag moom fi mu nekk nii day couronné nañ ko maanaam daal sapp ba moom wala mbaxana ma wala buru roi ba day solal nañ ko ko mbubb ma daal sol na ko sol mbaxanaam Eumeu Sène itam moo ko solal loola daal di nag yëkkati loxo ba waaye nag moo tax yëglikaay bi ñëw na ñoom ñaar ku ci yaa ngay wax wax bu dee kii nga xam ne ni day moo di Eumeu seen la Eumeu moom dana li leer ba leer day mbirum Balla Gaye moom bu ko ko kenn wax ndax nag jàpp na ne day ñoom ñaar daje moom mënatu la am ci seenu diggante leneen loo xam ne tamit ñëw na ci moom mi nga xam ne moo di Eumeu Sène ci wàllum mystique maag wàllum erreur ba mu def ci combat bi nee na nag erreur laa def erreur boo xam ne na ma dóore ji baaxul moo tax li ma dalit dal ma moom daal nangu na ko nee na nag mbirum roi mi moom coow ko nee na Modou Lo mooy roi tey suba waxi noppi te man Eumeu Sène day nangu naa ak roi am loolu mooy ay waxam mu ne ko sa digganteeg Baboye ak Ama Baldé mu ne leer ba leer day wax yooyu nan ko tege nee Ama Baldé sama rakk la sama xarit la sama lépp la te itam lenn loo xam ne nii daal xool naa ko ci man bu baax amut waaye mbirum baabooy moom nanguwu caa wax moom daal mbiri baabooy moom nee la ko tege waaye li leer ba leer daal ama moom leeral na ca bu baax a baax baax ba moom bi nga xam ne ne moom moo di Eumeu Sène ñëw na tamit ci avenir am maanaam li ko dese ci làmb ji bu dee mot loola moom moom itam wax na de nee na day moom dal gi wax na ci gi mu daloon ci combat ak li nga xam ne nii day moom moo di bañ wax bi mu bañoon a wax ak journaliste si moom Eumeu Sène wala boog moom mot loo mot na ne day loolu na koo ko presse bi jéggal ndax moom loolu du jikkoom ndax nag mënta def lenn lu jàll fim ci wàllum communication te àndoo ci ak presse bi nee na sax te loolu li tax mu war koo xam nee am na loo xam ne day ci kanam war na ko organiser te bu keroogee si yépp nag la fas yéenee ànd ak ci loolu ndam li mu am itam wax na ci nee na kaw bi day fi mu dóor Eumeu Sène moom jàpp na ne loolu mënu woon a koo dóor fenn fu foofu ndax foofu la jàpp ne su ko fa dóoree fa la koy mën a dóor ngir la mu bëgg ci combat bi mu am ko maanaam mu daanu mbirum tafaatin ak Ama Balde wala Balla Gaye moo loolu ñëw na ci bu dee Balla la moom nee bi nu bëree daa yàggut di ren ji li mu te bi nu bëree ak léegi mu am ndam ci sama kaw nee na kon fi mu nekk nii day mbirum Balla moom nee na seen ñetteelu combat xanaa kay ca kanam waaye moom jàpp na ne du léegi mbirum Ama ak tafaatin itam jàpp na ne moom daal mu ngi ci lam di fi mu nekk nii xëy na nag toll na foo xam ne mooy may ay adversaire am sens di leer ba leer waal mbirum nopp lu daa mel ni moom la gën a wax ndax nee na benn saison nda da cee bëre ñaari combat mu muut loo moo xëy tey di wax loolu ñu ne ko soog ko oto bi lakkoon nag ñaari fan afaa combat bi mu ne loolu moom déstabilisé wu ma maanaam nekkul mbir moo xam ne daal mu ma jaaxaloon la wala mu yëngal ma daa jàpp ne daal mbirum suñu borom la ñëw na ma jàppee ko noonu moom ëmas loo moo xëy di wax lu mel noonu ci yëglikaay bi nga xam moo di sunu làmb waaye seen jàkkaarloo boobu nag mel ni Youssou Ndour moom woote na fa waaye Youssou day la ko metti wala la muy tiit nee na làmb ji làmb ji day su daa jàpp bu buñ ci waxul wala ñu jóg ci moom ci dee la jëm ndax nag nii muy doxe la jàpp ne waru noo doxe moom Youssou Ndour bi nga xam ne nag moom lañ tudde woon drapeau ba ba tey tamit mu njiital super étoile waaye ka ko tudde woon làmb ja di Moustapha Diop moom mu ngay wax li leer ba leer daal Moustapha Diop moom kuy xalaat ne daa pert ca combat ba wala amu ca bénéfice moom Moustapha nee na loolu amul de moom daal jàpp na ne perte moom jamais perte amu ca tey suba waxi noppi waaye dañuy dellu ba tey ci yëglikaay bi nag ñëw ci koo xam ne itam de tudd nañ ko léegi muy baabooy baabooy nag yëglikaay bee ko laaj mu ne moom day li mu xam ca Pikine su ko waxoon Pikine day xaar ñaar explosé lay def moom baabooy moo xëy tey di wax lu ci yëglikaay bi nga xam ne ni moom moo di sunu làmb waaye leneen loo xam ne tamit yëglikaay yi ñëw na ci muy jàppal loo Leewtoo Planète day mu ngi wax làmb ja nga xam ne day amoon na ci weekend yii wala ci après tabaski bi ci dëkku séréer yi jàppal fii nga xam ne nii moom moo di Yékini lamb ji Ablaye Diop lamb ji mu tëggoon ci suñu ndey tëggoon fa oto ordinateur ko gagné waaye moom daal ba mu gagné oto ba ba ñu ñibbeek moom ndey soriwul doxut ñaari paa ne oto bi tàkkal oto bi tàkk ba mu neex ko mu mu fay ne ko mënatumaa tàkk mu mel ni ki daal kon oto booba moom jël na ko dey waaye yóbbu ko këram wala ba mu ko yóbbu boog da koo puus ndax oto ba daa fay ne ko a mënatumaa dem waaye ni moom la mu tegoon yëglikaay bi nga xam ne mooy Leewtoo point net mu ngi xam ne day Émile François Gomis moo ko jël xaalis bi Yaxya Jóob tegoon fa nga xam ne tamit moo doon ca deux millions tegoon ca dëkkam ba nga xam ne moom moo di Joal François Gomis daal la fa dem jël ko ci kaw ki nga xam ne mooy Doudou Sané bu Joof yor Leewtoo point net moo xëy tey dinu wax lu mel ni ki noonu fa nga xam ne tamit moom moo di ca Marloj moom jàppal la fa amoon di tournoi bi danañ yeggul ka ko teree yegg nag moo di Liwi Coor moo empêché daal mbir ma yegg ba tey leneen loo xam ne dañu ñëw ci suñu làmb fekk ko fa muy beneen association boo xam ne de juddooti na di liir bu bees teq teq teq ci làmb ka ko juddule nag wala ñu ko juddule ñenn la ne nañ président ba day mooy Moustapha Guèye mi ñu xam muy mooy Père Birahim Ndiaye ma nga xam ne tamit nekkoon nekk Fass waaye secrétaire général ba day ñun ñuy xamal ne mooy Ousmane Diop bu Caaroy waaye ki nga xam ne nag mooy sañ wax ga maanaam porte parole ba mooy Boy Kayre Baye Diène Kayre ba moom Pape Konaté mi ngeen xam capitaine PK Madia Italie ne nañ mooy coordinateur ba association ba nag ne nañ ñu ngi ko tuddee li nga xam ne les sages daal la ñu wax de la lutte boobu daal juddooti na nekkati bu bees làmb ki kuréelam waaye sunu làmb ñëw na am na mu ëndilati ci combat yoo xam ne ñu ngi laaj amateur yi ndax lii war naa mën a ne Diène Kairé Moussa Ndoye double moteur Quench ndax loolu war naa mën a nekk ci lii nga xam ne nii day mooy saison bii ñu jëm nday Kumba Fall tabaski gi ñëw na tabaski nañoo jàmm tabaski ga jeex na bala ñu nit ñi àq di wax ni képp ku nu tooñ ñu ngi lay baal ne xam naa sax tooñ naa ndax nag gëj nañu dégg Babacar gëj nañu koo gis xanaa doon nopp lu tuuti ndax nag wax daa metti te saison bii ren dafa taroon lool de maanaam daal wax jaa safoon na safa saf ba nga xam ne ba ma ñett ngoo fexe baf ngu ba dugg ak yaay daal dama ne ceel éliminer téléphone ya xaw a wàcce tuuti làmb ji ngir nag jot sama bopp ni ko la SENT TV ni leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon ci revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Kumba Fall di la nuyu di la ziar di la baaloo àq te di la baal di ñaan yàlla bu bu leen jégal ci fête bi nu jógee muy feetu tabaski di la wax ne namoon naa la waaye namoon naa tamit Talla Ndiaye di ko nuyu di ko baaloo àq Serigne Lébu waaye namoon naa waa Leewtoo yëpp waaye xam nga ñu ma gën a mam internautes yi internautes yi moom yàlla xam ne namoon naa leen waaye nag balaa may wax dara dama leen naan ngeen baal ma àq maa leen di jéglu bu baax a baax ndax am na loo xam nit ki su ko tàmmee yow soo ko ko privé ay fan rek tooñ nga ko te li may def nii wala li ñuy def nii ak yéen lu ñu war lool ak yéen ko moom ci ñun waaye nag olof a ko wax rek xam nga lu mënta ñàkk faw mu am mais ñu ngi jéglu bu baax a baax di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di balu ñëpp wax di ñaanal ñëpp jàmm. Babacar loolu am na solo ni ñëw ak euh, sunu lamb sunu lamb nag ni ñu ñëw si diggante si face à face mujj bu am diggante Modou Lo ak euh, ak Eumeu Sène démb la woon fee si cosaan naay club ñu maanaam daal Eumeu ak Modou wàccoon nañu ak ak promoteur bi. waaw loolu day mooy li ci desoon maanaam seen dernier jàkkaarloo parce que tamit bëree ñu am seen combat taxaw na di revanche bu metti woon vraiment ñu xaaroon ci mu metti far gis nga ne mu mujjee Modou Lo ko par kaw bu doy doy waar Eumeu itam. boobu ba tey dégguñu ko dégguñu Modou Lo loolu nag xam naa seen diggante loolu ak promoteur bi. Eumeu Sène dégg nañ ko Modou Lo dégg. waaw Eumeu dégg nañ ko mais xëy na dégg bi ñu ko dégg sax nekkul dégg bu nga xam ne moom lañ doon xaar carrément mais nag euh, waaw mais loolu lépp li ci li muy undu rek mooy xëy na promoteur leen tëggun jox leen xaalis am ñoo xam ne su amee il faut nga téye sa bopp ba la leen koy nangul génn nañu nag seen dernier jàkkaarloo defe ko TFM ah muy loo xam ne itam vraiment luñ doon xaar la te ñu bëggoon a xam la kañ la takkal muudu couronne bi ak yu mel ne ki noonu loolu nag def nañ ko bi Eumeu Sène jël na ko solol ko ko kon actuellement. te nangul na ko ne moom mooy roi des arènes. non loolu loolu lees ko sañ a bañam kay mooy roi des arènes muy géej gi am na ndox actuellement parce que nag mérito na ko parcours may na ko ko te liggéey na ko yaa ngi dégg yaakaar naa 2006 wala nga ñëw si làmb def parcours bi mu def ak ndam yi mu am ak mbër yi mu bëreel. ak muy bi mu amee loolu defe naa ku dul champion dëgg dëgg te joxoo coor li ngay def mënoo ko am kon actuellement moom mooy roi des arènes parce que moo nangu loolu mooy doyen ci làmb su ko mayee sens bëre ak moom yoroon couronne couronne roi bi Modou saisir sens boobu yàlla may ko ci ndam mu tamit delloo ko cër bi kon loolu mooy kan ne Sénégal daal li ñuy wax rek mën nañuy xaw a xëccoo ci ay wax mais suñ toogee waxtaan léppay rafet parce que sport la ñuy def suñu arène suñu sport national félicitation Modou Lo di courage Eumeu Sène di tam seen supporters yépp moo xam supporter u Modou yi la ak supporter u Eumeu yi di wax ne kenn pertul kenn gañewul Sénégal moo gaña rek parce que lépp ci réew mi la desaat quoi seen jàkkaarloo boobu sax Modou la wax na fu mu jëm pour saison déwén Eumeu Sène aussi wax na tamit moom tamit fu mu jëm pour euh, pour saison prochaine. waaw ñoom ñaar ñëpp ah parce que tamit li am solo mooy que ni ku ci ne rek am na lu lay xaar parce que lamb ji moom fekk yaa ngi yor licence di mën a bëre di apt defi yaa ngi xëy di jàkkaarloog yow tey mu Lo mi jël roi des arènes moo gën a am ñëpp problème parce que li mu yor la ñëpp soxla kon defe naa moom moo ëpp adversaire kon li koy xaar sax pour man moo gën a metti li jàll Eumeu Sène mi nga xam ne da ko yoroon ñàkk ko te bàyyeegul parce que dégguñu mu ne bàyyi na moom tey actuellement tamit amaat na défi bu koy xaar mooy défi ban mu relever défi bi mooy lan mooy mu jógaat maanaam amaat ndam parce que ni mu daanoo dafa xaw metti kon tey li koy xaar mooy mu amaat ndam kon defe naa loolu moo lay wane ne saison prochaine moom ñoom ñaar xaw ma ah, na ñoom ay adversaire pour mën a bëre parce que yaakaar naa war nañ ko mën a am parce que itam mm, làmb ji mooy doxe noonu euh, soo soo nee ci benn combat dañ dañ yaakaar bii combat rek mooy combat mais su jàllee la leen day juddwaat loo xam ne mooy sax gën a tar li nga passé woon mais nag loolu mooy sport loolu mooy sport Babacar pare ma tamit mi ngi fa woon muy Youssou Ndour Youssou Ndour dem lu mu lu mu wax maanaam bu mu félicité ñaari ñaari euh, mbër yooyu ne leen nee askanu làmb daal suñu defalee attention làmb daal si dee la jëm parce que mbër war na mën a bëree surtout ténor yi euh, benn ba ñaari combat si saison bi. waaw Youssou Ndour de defe naa ne tey ci Sénégal euh, lu mu wax lu ne war nañ ci mën a bàyyi xel ndax li tax mooy que ni artiste la. international loolu àddina bi xam nañ ko mais yemut ci loolu yaakaar naa tey fañ doon waxate fañ doon waxee muy TFM télévision la te defe naa loolu ci ay yëfam la bokk ak fu mel ne RFM maanaam groupe suñ ko dee wax kon defe naa moom nit la bi nga xam ne tey lu mu tax mbir avance wala luy tax mbir dellu ginnaaw rek war nañ ci bàyyi xel ndax am na lu mu ci xam kon defe naa loolu mu wax itam raison la buñ toogee tey saison jot benn mbër yu mag yi mënuñoo bëree benn combat wala sax bay wax ñaar loolu bu yàggee làmb day dee parce tey gis nga ñaane balance saison bi jeex nii mbër yu mag yëpp parce que dañoo ànd balance Modou Lo si bëri ak Balla Gaye 2 ak Lac de Guiers ak Eumeu Sène ak ku mel ni Boy Niang mais à part ça ñi des ñëpp ay année balance lañ def Bombardier bëriwul Gris Bordeaux Ama Baldé ñoom guy gi Siteu Tapha Tine kenn xam nga kenn. budul ñoom Garga Mbossé ak Moussa Ndoye kon nga xam ne kon loolu mu wax nañ ci bàyyi xel loolu nag li koy décanté pour man mooy kani tamit ñoom ñi nga xam ne mën naa ne ay autorité lañ ndax suñu autorité la ci réew mi ndax ministre conseil la kon autorité la ba pare nekk artiste international société yi nga xam ne dañu ci réew mi di ay société multinationale lañ leen di wax du ñu jógee à l'étranger ñëw fii di di di jële fii alal ci ñun pourquoi mënuñu ñu ko dellu suñu sport national bi dimbali jàppale promoteurs yi parce que affaire bi tamit liggéey promoteurs ay mi rok la danga may jox rek am ci man li ma am ci lu yow lii kon nañ ñu jàppale pour que ténor yooyu ñu mën di bëre ci saison yi lu baree baree bëri loolu nag li bu ñu ko waxee mooy sponsoriser nit ki waxuñu ne tey dañuy wañ loxo nday Kumba ne ko jàppaleel tàll par force déedéet buñ ko defee xëy na dina mën a avancer mbir mën a bëri mais Youssou Ndour encore une fois di kontaan ci drapeau bi ñu ko tuddee woon di ko ñaanal yàlla tamit mu gën a gudd fan gën a wér gën fee yàgg mais di ko ñaanal ñëpp parce tamit am na lu mu def ci réew mi te am na itam yaakaar na lu ko réew mi delloo lu koy ñaan moom tamit mu ñëwaat ndax tëgg na fi ay euh, combat créé woon na fi surtout bu tudd euh, Euh, entertainment donc GFM entertainment yi ñaan tamit moom tamit comme que nee na làmb ji mun na am si dee jëm moom tamit xëy su ñëwee rek def si la ak sotti si la du si du si yàq dara mais Babacar am na benn association bu ñu créé muy association des sages bi nga xam ne Moustapha Gueye ancien euh, deuxième tigre ancien tigre deuxième tigre de Fass moo ko créé ak ñoom père Birame Ndiaye. waaw Moustapha Gueye ak ñoom père Birame Ndiaye euh, des sages de la loolu de da xam naa sages mooy ñu ñu xaw a ñu magee. wala noonu mooy sens wala ñoo xam ne dañuy defar maanaam daal ñuy. ñuy defar pas magay mais ñuy defar parce que Moustapha Gaye mag la mais mooy président du mag mais Birame Ndiaye moo ko moo moo ko gën a nekk mag teewul mu nekk président. waaw ah, may wax magay ñuy defar daal peut être xëy na ñu xam jubawuñ seen. diggante yi quoi voilà. waaw xam nga suñu wax defar moom des fois xale dina defar waaye mag lañ ci gën a yaakaar. yaa ngi dégg suñu maanaam fu dara yàqu suñu sañoon balaa ko xale yi defar mag ñay ñëw defar ko. kon xëy na bu ñu waxee mag bi foofu la ñuy waxee ba tey tamit parce que mën nañ ne mag lañ ñoom ñooñu parce que bàyyi nañ bëri ñu fi limba sànq bàyyi nañ bëri mu Moustapha Guèye Boy Kayre

waxoon dégg naa rek nun na moo gën àddina bi nu nag ëllëg yowmal xiyaam moo fa gën kon li ñu koy man li ñu koy may yàlla nañ ko xam te ci ne saa yu ñu xëyee amin Babacar Babacar su fekkee ne bëre dóor bi moom tëj na ba simple moom mi ngi continuer surtout nag si àll bi euh, mercredi bi nu génn sum pollution tëggoon na foofu noonu si village am si wetu Foundiougne euh, benn teg na fa 10 000 ak benn auto appel Opel mais finalement euh, làmb ji daal kii moo ko jël ordinateur mais bu oto bi paat ah loolu de doy na waar Ablaye Diop ñu koy nuyu di ko ziar suñu xarit la moom suñu doomu ndey la sum production di nuyu waa sum yëpp ah loolu nag xëy na kon la ñuy wax daal mooy am na méritu tëgg na làmb ba teg lu toll ni oto loolu defe naa itam lu am solo la ah mbër ma nag moo xam ne moo ko gagné bu fekk oto ba daa panne moo xam essence la panne wala moteur dem réparé ji rek ndax bëre ba gagné oto moom defe naa itam lu rëy la waa kon lit simple bi moom vraiment côté boobu mu ngi yëngutu bu baax a baax a baax Euh, Yékini tamit dem euh, samedi tegoon na tegoon na 2 millions fee mu dëkk Joal euh, ki ñuy wax franc moo ko jël si kaw Doudou Sané. waaw yax yi jub bi daa delloo mbatu si ci ndaali rek waaw ndax li tax ngay tax moom soo goroolee na ko yaa tax may tax. te comme moom làmba tax Sénégal xam ko defe naa tey bu bëri ba bàyyi bëri dëkk fa mu dëkk muy dëkk muy ci Joal mu yëkkatiwaat xaaj di fa teg xale yi di jongante defe naa loolu tamit mérite la ñu koy nuyu di ko ziar le grand champion Yaxya Jóob Yékini le king comme ni ñu koy waxee euh, Franc itam vraiment moom it vraiment ñëw na dem Joal jël affaire bi ci kaw Doudou Sané kon ñu koy féliciter di encourager Doudou Sané li simple moom noonu lay demee tey day gagné kii day gagné fii suba ki lay gagné fële mais itam di la fàttali ne dem naa fi reefan lamb yu ne amoon na fa ba ngay gis biddiw bëccëg yaa ngi reetaat mais reefan may nuyu prési ak ñoo fa tuggoon lamb yi alxames passé ak ajuma passé <laughs> baba ko nu jeexale na ak nouvelle bu neex ki nga xam ni mooy euh, euh, la dame de fer Ndeye Ndiaye Tyson nekk na ma madame Ndiaye léegi madame Ndiaye. madame Diagne la nekk. ok madame Diagne am na solo ñu koy ñaanal yàlla parce que sëy moom lu am solo la yàlla ñu ko sant suñ ci toll la war koo def kon yàlla na ko sëy boobu jik moom ci njaboot bu am barke barke yonent bi moom Ndeye Ndiaye tey sax ñu koy nuyu xam ne ni vraiment mu ngi wane boppam bu baax a baax ci développement Sénégal rawatina làmb ji nga xam ne mooy daal yàlla na am barke ni sëy yi nga xam ne nii moom la ñuy jàpp ne yu am barke la yàlla na sëy boobu yàgg foofu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa Babacar si kàddu yooyu la ñuy tàggu suñu mbokk internet yi balaa boobu may nuyu sama yaay Mère Sow Euh, di nuyu aussi Mohamed sama doom di nuyu Dadi Gueye naan ko namm naa ko lool di nuyu aussi euh, Khadija Diallo chéri euh, Astandine depuis Italie di nuyu aussi doomam ñoom tam dañ ñuy bëggee ku si mel ni Mame Diarra Penda Bébé Fallou ak bébé Rokhaya doomu Eva Eva Diallo nuyu nuyu aussi aussi tëttaala bi nga xam ne ñëwaat na suñu biir namoon nañ ko lool am am am Babacar. waaw loolu am na solo taala ñu koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm sëriñ Lébu. bi rafet na trop. naa ko tey non carax yi carax yi ñoo rafet quoi. yére bi moom ab kii la miin nañ ko ay carax yi moom miinuñu ko ñu koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm di nuyu internet yi Leewtoo yépp ah day ko ma li may wax yi boo ko bëggee ree mbaa dina sotti di leen ñaanal jàmm di leen bàllu àq di wax ne que rek ku mel ni ki nag euh, ñoom Khadiros Ndiaye ñoom Assane Sall ñoom góor a Seck xam nga ñoom ñëpp waa axlu làmb Sénégal 100 pour cent làmb 100 pour cent Babacar fan si club Leewtoo fépp fu waay nekk tey bëggee Babacar wala ngay bëggee Leewtoo wala ngay bëggee làmb sax lay wax rek Babacar nga lay fekk fa nga nekk di la nuyu kot su jamono depuis Paris du ma ko fàtte waaye tamit di nuyu Alla Fall amitié 3 maa ngi koy nuyu bu baax a baax. borom Lacoste bi waaw dëkk Tiwaawoon moom tamit ma koy nuyu bu baax di nuyu Aïda Diouf borom Leewtoo maa ngi koy bu baax a baax Aïda maa ngi lay ziar mais di nuyu tamit Xaadim Mbeng nekk fa nga xam ne nii moom mooy ca centre commercial Sicap Plateau fële keroog moom moo ba mu ñëw mu jox ma gis nga tubéy bu rafet bi ak lakosu bi kon xaarim maa ngi koy nuyu di nuyu commerce foofu ko su jama moo ma ko joxoon di ñaanal ñëpp di ballu ñëpp ak di wax ne xol bu sedd yaram mu sedd yàlla na ko yàlla def ci Sénégal mais nawet bi itam ni mu commencé yàlla na ni jeexee noonu ci barke yonent bi liñ ci béy ñu muurloo ko ndax kaw ga moom soxla nañ ko te yi wax dëgg yàlla macha allah mu ngay taw mbott yaa ngay ngooq